asalaamaaleykum sama gars yi bienvenue sur CTGHT sama gars yi temps si ginnaaw dama bëggoon jënd portable et bi may jënd portable euh, dama ni woon euh, lan laa soxla comme portable dama bëggoon portable bi nga xamante ni déjà day am écran bu leer écran bu yaatu écran bu nice loolu laa bëggoon Euh, deuxième critère moom moo nekkoon portable bi nga xam te lu mu dee dee dina am trois caméras maanaam grand angle ultra grand angle téléobjectif bu ma wax trois caméras si ginnaaw moo tax même bu fekkee ni dina am selfie bu leer mais selfie dafa nekk li nga xam te ni man personnellement tàmmu ma ko utiliser wala tàmmu ma ko woon utiliser parce que temps yi yëpp sama vidéo yëpp ay selfie laa ko filmer et loolu noonu je t'assure am na lu ñu doon wax deux mois si ginnaaw ku ma waxoon dafa loolu dama naan maa bañ am na euh, bi nga xam te ni c'est très important du batterie de mais na portable bi mën a jël micro avec prise jack et loolu noonu dafa nekkoon li nga xamante ni dafa nekk lu am solo et loolu bi ma jëlee ñett choix yooyu noonu nga xamante ni moom moo nekk sama choix principal li tax ma gën a choisir portable bi nga xamante ni moom laa leen di wax tey mu di Samsung Galaxy S10 mi nga xamante ni actuellement moo nekk sama portable personnel et franchement sama choix yooyu rëccu ma ko parce que bi ma jëlee portable bi lépp lu mu doon wut ci portable am naa ko am naa sax li nga xamante ni wees na sama njort sama gars yi ñu bëri seen daañu seetlu ni man sama critères yi ma utiliser pri bokk ci parce que pour man pri ñu bëri seen moom mooy yàq seen choix prix pour man ban moment la war a ñëw mooy bu nga demee ba gis yow li nga bëgg nga gis si ñaar foofu la prix war a ñëw mais pour man li nga xam te ni moo ëpp solo li war a njëkk ñëw moom mooy écran parce que écran dafa nekk li nga xam te ni da ngay jëflante ak moom moom ngay gën a jëflante ak moom mooy li nga xamante ni moo li permettre nga mën a utiliser sa portable moo lay permettre euh, nga mën a gis photo yi ndax rafet na ndax euh, ñaaw na ndax vidéo bi image yi ni nga ko bëggee mel na noonu ndax qualité image bi nu mu mel baax na yooyu yëpp écran bi moo lay permettre nga xam nga et pour man yooyu noonu dafa nekk yi nga xamante ni choix yu am importance la man yooyu noonu ay critères yu am importance la si man loolu moo tax bi may wax ma ni déjà il faut que écran bi nekk écran boo xamante ni écran bu qualité la et portable bii di Samsung Galaxy S10 écran bu am qualité la yore parce que mi ngi yore écran bi nga xamante ni définition Quad HD plus la maanaam 1440p loolu noonu dafa nekk écran bi nga xamante ni dafa neex a seetaani ay vidéo vidéo YouTube mën ko consommer de manière bi nga xamante ni euh, même bu fekkee ni da nga nekk si mbedd mi même bu fekkee ni da nga nekk si foo xamante ni naaj bi dafa tàppe nii euh, euh, e, e, ciel bi dégagé comme ça naaj bi saf-saf dinga nga mën a gis yow li nekk si portable di nga mën a seetaan vidéo yi nga xamante ni mi ngi si portable et loolu lu am solo la léegi sama gars yi ñu bëri si yéen daañu ni ma waa mais cher portable bi lan mooy performance yi euh, portable bi performance yi bugguma dugg franchement parce que portable bi déjà mën naa leen wax i est très très performant moo gën a performance sama portable ma yoroon mu di Samsung Galaxy S9 bi et franchement S10 bi portable bu trop trop sax parce que déjà ngi yore man maa ngi yore version bi nga xamante ni euh, Snapdragon la maanaam 855 bi bi nga xamante ni il est très bien même niveau autonomie euh, gestion autonomie bi nga xamante ni gis naa ko si portable bi man ça me va très bien mais dama bëgg juste ngeen comprendre leen euh, ñun dañ tollu jamono ji nga xamante ni portable yi dañu puissant trop ba nga xamante ni mënuñu supporter seen batterie portable man taille portable yi ma bëgg il faut que may gérer batterie bi loolu moom dafa am man taille portable ma bëgg bëgguma actuellement portable yu rëy donc donc damay xam ni taille bi moom moo tax batterie bi tooy noonu et pour man leen moo ëpp solo nga am charge rapide mais wutal juste charge rapide nga xamante ni boo ko branché quelque temps après affaire bi nga xamante ni day fees euh, au lieu ngay ngay bëgg bi nga xamante ni tout le temps danga nga bëgg mu nekk euh, euh, nga chargé ko benn yoon yore ko pendant des jours et des jours yooyu moom boo ko bëggee il faut nga dem si portable yi nga xamante ni ay Samsung Galaxy A la wala portable parce que ñoom loolu lan leen defaree seen puissance yi bokkul ak puissance yi nekk si portable bi non non parce que bokk ñu ñuy traité photo bokk ñu ñuy traité vidéo bokk ñu yooyu yëpp i euh, itam portable yooyu dañ ko def juste pour ñi nga xamante ni dañu bëgg utiliser portable deux jours ba trois jours maanaam seen utilisation portable bëriwul mais portable yi dañ ko def plus ñi nga xamante ni dañu bëgg di di di dund moment bi maanaam di def ay vidéo di def ay photo le temps tout le temps tout le temps et yooyu noonu portable rek ñoo la ko a permettre et yooyu noonu boo def si ni mu gënee yore portable haut de gën comme portable bii ma yore mu di Samsung Galaxy S10 et franchement niveau photo niveau vidéo c'est autre chose léegi sama gars yi dama bëggoon juste suñu wax si photo bi nga xamante ni déjà mi ngi ci portable bii di Samsung Galaxy S10 actuellement maa ngi utiliser selfie bi e wax leen ma loo leen si ci selfie bi selfie bi moom mooy selfie Samsung Galaxy S10 moom laay utiliser depuis sànq ba léegi moom laay filmer sama vidéo yi yëpp temps yi et di ngeen gis selfie bi selfie bu 10 mégapixels et franchement voilà ça quoi Euh, euh, man lenn moo ci nekk lenn moo nekk si selfie bi euh, dafay xaw a saturé sama kanam bi dafay sama kanam bi da ngeen gis dafa leer naññ dafa liis da ngeen gis ni dafa ma def effet beauté loolu noonu pour man soofuma bu fekkee ni selfie la et bu fekkee ni vidéo saturation soofu si trop loolu si photo la soof e loolu noonu nekk na ci portable bi mais loolu daan ci ñëw ci kanam parce que selfie bi pour man ni muy defee nii selfie beauté ça me va ça va franchement xaw a vertal garab yi nii tuuti xaw a bleuwal ciel bi nii c'est très joli euh, léegi nag ñu dem si caméra yi ci ginnaaw caméra yi ci ginnaaw actuellement boo leen xoolee nii maa ngi utiliser caméra grand angle bi nga xam te ni 12 mégapixels la caméra ginnaaw bi moom mooy caméra bi nga xam te ni moo ci gën a performant moom mooy caméra principale bi d'accord et caméra bi moom euh, mi ngi nekk ouverture euh, ni ñu koy waxatee sax mi ngi nekk zoom x1 actuellement ni ultra grand angle bi actuellement moom moo nekk nii et di ngeen gis ni la même endroit la taxaw mais gis ngeen li may gis dafa gën a gën gën a yaatu et di ngeen gis ni actuellement euh, couleurs yi daanaka changé wul on va se dire ça parce que couleur yi daanaka changé wul mi ngi mel ni euh, caméra bu mag bi laa jël rek mais ma reculer que un peu alors que bii maa ngi jàllaat si beneen objectif beneen objectif bi nga xamante ni moom mooy ultra grand angle bi et bii 16 mégapixels et franchement franchement da ngay am ay détails yi nga xamante ni fa rafet trop trop trop trop sax. mais du ñu yem foofu on va passer si bi nga xamante ni mooy zoom bi maanaam bu ma bëggee jugee foofu ma dem zoomé la maa ngi ni di zoomé pese caméra téléobjectif bi nga xamante ni douze mégapixels la e wax leen ma affaire bi loo leen xalaat actuellement xam xool sama basketteur yi et di ngeen gis ni franchement franchement lii nii lii nii dafa neex parce que fi bu ma jugee ultra grand angle genre ma jugee ultra grand angle gis nga basketteur yi fee dañuy toll bu ma demee ba grand angle bi maanaam zoom fois deux Euh, actuellement basketteurs yi ñu ngi nii mën naa dem zoom fois 4 bi nga xamante ni dina jege mais wala ça ira quoi genre xaama dem zoom fois 4 zoom fois 4 ya day gën a jege et tu vois voilà ba tey am nañ image bi nga xamante ni sava va quoi franchement ça va et mën naa mën naa utiliser image bii nii euh, c'est pas bi nga xamante ni moo gën mais franchement ça va franchement ça va am na aussi zoom fois 10 mais c'est très dégueulasse boobu moom Euh, du ma leen ko conseil ngeen utiliser ko mais man pour man x2 bi ça boo bëggee gën a jege nga approché tuuti mais x2 bi ça va mais man caméra bi ma ci gën a neex bi nga xamante ni mooy sama préféré moom mooy ultra grand angle parce que moo nekk caméra bi nga xamante ni moom laay gën a utiliser mais utiliser wu ma ko uniquement pour vidéo mais itam surtout pour photo et photo yi moom boo leen bëggee gis photo yi nga xamante ni lii da koy jël dama leen il faut ngeen dem suivre ma sama Instagram parce que franchement franchement portable bi mi ngi fay toj. léegi sama gars yi niveau photo. photo bi portable bi portable photo la photo la lay def je t'assure wax naa leen dem leen suivre ma sama compte Instagram euh, euh, surtout foofu di gis photo yi nga xam te ni euh, photo naa ko ak portable bi modifié ko ak portable bi posté ko si portable bi mais sama gars yi dama bëggoon juste ngeen comprendre leen photo bi portable yi di jël portable bi day permettre nga mën a découvrir beneen univers photo maanaam le fait nga mën a am trois appareils photo si benn portable maanaam grand angle ultra grand angle téléobjectif loolu dafa nekk lu am solo actuellement boo leen leen polyvalence parce que xamoo leen ban moment ngeen di soxla benn bi bu fekkee ni yow photo dala intéressé trop wala bu fekkee ni yow foo toll yaa ngi bëgg di photo parce que polyvalence ci photo boobu noonu dalay tax nga mën a am genre nga nga nga nga mën a développer yow bu fekkee da nga bëgg gën a euh, yokk sa xarañte si wàllum photographie. fekkee la RAS maanaam détourage portrait bi nu mu koy defee RAS franchement c' est très très bien loolu moom euh, portable Samsung yi maîtriser nañ ko depuis très longtemps euh, am na itam lu ñuy wax contre-jour c' est très bien nu mu koy defee am na lu ñuy wax genre porte photo normal genre photo normale yi moom il le fait il fait très très bien ba pare. Euh, objectif bi genre nu ñu koy waxatee sax photo yi dafa gaaw genre nu muy jëlee cliché yi dafa gaaw nu muy nu euh, nekkul da jël photo nga nga da jël photo affaire bi am retard instant yi nga cliquer ak instant yi mu jëlee photo non non tu fais tac clic rek mu jël photo et loolu dafa nekk li nga xam te ne dafa neex parce que des fois da ngay bëgg figer benn image si lu mu gën gaaw gaaw am na aussi le mode pro mode pro vidéo pro loolu dafa nekk li nga xamante ni man dama koy utiliser lu bëri parce que loolu day tax nga gën a mën lépp li nga xamante ni yaa ngi koy jël comme lu fekkee ne yow comprendre paramètres yi comme yow noo ko bëggee mais bu fekke na ngeen gën a bëgg xam portable bi la la mën a def si wàllum photo def naa benn vidéo ak bàyyi woon ma comparé portable Samsung Galaxy S10 ak Samsung Galaxy S21 dem leen ngeen seetaani vidéo boobu parce que vidéo bu am solo la parce que wax neen fa lépp li ngeen xamante ni war ngeen ko xam surtout si wàllum photo léegi nag sama gars point bi nga xamante ni moom mujj et pour man moom ma ëppal solo moom mooy prise jack parce que man place su jack bi ñu bëri si yéen daañu waa mais lu tax nga soxla place prise jack parce que micro bi déjà micro cravate bi ma yore pour ma brancher ko foog ma am place prise des fois di nga filmer ba si yàgg ensuite léegi sa portable vide ah nga bëgg brancher sa portable si benn power bank continuer di filmer et loolu noonu il faut que soit bu fekkee ni amoo place prise jack fekkee amoo place micro il faut nga débrancher micro bi charger sa portable ensuite ba pare nga continuer euh, filmer waat et loolu noonu pour man boo amee place prise jack actuellement nii may filmer nii mën naa nekk di charger sama portable euh, ak euh, sama gimbal bi may utiliser maanaam ak stabilisateur bi may utiliser nii charger sama portable ba pare di filmer aussi e loolu yëpp dara du ma ci yàqal dara donc franchement loolu noonu dafa nekkoon point bu am importance si man léegi nag sama gars yi leen ma loo leen xalaat si portable bii di Samsung Galaxy S10 vidéo bi dama ko def vidéo bi te ne juste li ma dund ak portable bi la euh, mën naa leen bëri bëri bëri yeneen question euh, yeneen euh, vidéo question mën naa ko def damay bañ vidéo bi gudd parce que temps yi bëggatuma def ay vidéo yu gudd trop parce que gis naa ñu bëri seen des fois vidéo yu gudd yi da leen di xaw a sonal donc dama bëggoon juste yamale vidéo bi tey comme ça bu ko defee ñu defaat beneen vidéo question réponse bi nga xam te ni naatoon seen laaj yi nga xam te am ngeen ko surtout comparaison yi ngeen ko def ak yenn portable iPhone yi ma tontu laaj yooyu yëpp ci benn vidéo incha allah donc sama gars yi du ma def leen du leen di jox dig daje si samay prochaine vidéo incha allah peace